jërë ngeen jëf internautes yu Dakar Actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu and bi ngeen di and ak ñun saa su ne si seen i émission Actu Débat Actu Débat wàccaate tamit si langue gi tey nag ñu war a waxtaanee wàllum ak njàngale mi li ci mel enseignement supérieur supérieur boobu tax tey ñu dem ca université euh, Gaston Berger bu Saint-Louis euh, ñu dalal ki nga xamante ni moom moo nekk Pape Ibrahima Faye Pape Ibrahima Faye moom moo nekk directeur centre régional des œuvres universitaires bu Saint alors Seigne bi nous vous la dalal si TV. Nous aussi suivre. lire mhm. également euh, ki nga que Pape Ibrahima Faye euh, conseiller municipal la euh, commune de Saint-Louis nek également ku maire Mansour Faye alors directeur reprise le nañ le 1er septembre fan ngeen ci donc euh, <coughs> effectivement depuis que nous sommes au Sénégal le mhm. euh, président de la République décidé de nous faire une université pour l'art, nous nga enseignants et personnel mais surtout les mhm. étudiants Nous euh, ñu def mois de mars le 16 mars ba aussi dit que que ba président a ni tamit ni décidé bi reprendre l'activité mhm. élémentaire bi commencer. Euh, mu ni euh, ci le conseil des ministres nous commencé à tijji université ci Sénégal bi à partir du 1er septembre mhm. ci lolu tamit nous nous euh, ñun ñi nga xamni ñoo nek université Gaston Berger comme mhm. université Sénégal yépp mhm. liggéey pour que lolu am fi ñu lay wax ni li war pour que ñu tijji la nga xamni mom moy enseignants yi def nañ ko parties yi ñoo ngi sur place euh, dispositif bi yépp ñoo ngi sur place pour sécurité étudiants yi mm. pour le premier septembre mais université Saint-Louis euh, comme ñen ko mm. euh cours yi dama régul dama régul euh, dama régul parce ah que étudiants yi dañu déclencher un mouvement de grève mm-hmm. parce que dafa am li nga xamni ci plan de reprise bi mm-hmm. d'accord d'accorduñ ci hein, parce que dañ ni

mu am ci li nga xam ne ñun dañuy gérer ci wàllu social bi boo jëlee ci lal yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. Mm-hmm. ñu fonctionnel. Mm-hmm. mooy euh, juróomi junne ak téeméer. Mm-hmm. ak fanweer juróom yi chambre en tout cas lal yi nga xam ne étudiant mun nañu fa euh, tëdd moom moo fa nekk. tey jii boo méngalee la nga xam ni capacité d'accueil bi. ak étudiants ya fa nekk. Eh, ci période bi nga xamni mbass mi mi ngi fi ak docteur yi wax nañ ko mm. muy mesure barrière yu ñu wara a donc lolu boko xolé indi étudiants yépp ci biir campus social bi mm. donc euh, ñu def comme si de rien n'était mm. L'olu japp naa ni la te tamit ci ndogalu président nous commencé à courir hmm. mais nous respectons les gestes barrières ni barrière préciser que euh, que sommes strict hmm. côté d'accord est-ce que étudiants euh, ils ont été impliqués dans euh, processus bi ont nga 72 heures est-ce que c'est pas parce que ont li ngeen dans def bi nga étudiants seen non euh, université nuroowul ak euh, yeneen établissement public yi donc ñoom dañu am fonctionnement bi nga xam faut euh, dafa propre ci biir université am autonomie aussi université université dafa am recteur ci kaw recteur bi moom moi gérer li nga moi ni volet pédagogique bi ci campus pédagogique mhm. boo jëlee université Saint-Louis nga hamni ay UFR ñoom ñoo fa ay institut UFR bu nek am directeur. Mhm. ak institut am directeur mais ñooñu UFR yi dañu autonomie sur le plan pédagogique recteur mhm. mënul wax qui UFR ni nga wara a emploi temps yi. Mhm. ak nu ñuy enseignement yoyu enseignants yi ñoom eh, conseil du UFR ñoom qui jëlal seen bop ñoy est ci seen biir. est eh, wax ni ni est calendrier de reprise. té ci biir conseil d'UFR yoyu étudiants yi délégué UFR bi. Hmm. dafa nek ci biir. ci biir conseil conseil dafa bokk ci conseil. d'accord donc ci njëlbeen lolu hmm. ñom euh, ñoo ngi ci biir. Hmm. bo jëlé lolu ñom bu nu paree conseil d'UFR ba paré dañuy jël conseil d'UFR nek ku nek def sa PV. ñu jël PV yoy yone ko recteur. en tant que président de l'assemblée de l'université. assemblée université moy kuréel bu mag. bu nek université mom mo moo coiffé yépp y compris course nga xamni décision yi fofu lañ koy jëlé mhm. ñu jël ci biir conseil UFR bobu non directeur UFR ñom ñoom ñoo fa nek mhm. directeur CROUS man ci la bok mhm. mais tamit coordination des étudiants de Saint-Louis dañ fa am ay représentants. moy manam étudiants yi. am nañ fa neuf représentants. ñoñu tamit ñoo won ci réunion assemblée d'université donc ku nek joxe nga sa point de vue. mais li nga xamni euh, démocratie mom moko andi. Euh, ci biir euh, organe de décision université mhm. la nga euh, proposé proposition si dama damay mhm. proposition jógewul ci mhm. fan la université ba mois de mai déjà dafa créer nga commission sanitaire parce que dañu xool ni. Mhm. sur le plan national président de la république. Mhm. dafa une commission nationale sanitaire pour créer mhm. ci Covid bi. nga xam ni ñoo koy xelal. di ko wax février, bi nan lay nan lay manifesté woon nan nga ciy moytoon donc loolu ba créé une mu commission sanitaire boobu noonu. commission sanitaire bi ay euh, médecins des fa ay professeurs ñoo ngi fa. te ku ko jiite professeur Merry Badiane ka nga y a spécialiste spécialistes en maladie infectieuse au plan national dans le woo pour que nous de ko di ko laaj xalaatam comité régional de lutte contre Covid bi mhm. auprès du gouverneur mhm. tamit pratiquement à part médecin chef de région bi moom moo fa de di xelal mhm. ci en tout cas aar ak fièvre, bi ci kooku mooy diriger commission sanitaire donc commission sanitaire boobu moo on mois de mai déjà. Mhm. ñu commencé à réfléchir bu une mhm. reprise dana am. Mhm. ci yan condition nous reprendre ba nga nous ne l'art. nous nga commission sanitaire a def des recommandations. recommandations en réalité. moom moo jógee ci commission sanitaire Watch au niveau des conseils du Le conseil du FR Il euh, ko. wàcc euh, ci le plan social parce que dans nga daan chambre c'était des chambres à deux ay huit personnes ñoom fay fanaan mhm. des chambres yi nga c'était fait pour ay six personnes ñoo fa daan nekk par exemple module universitaire du village 15 mhm. personnes ñoom ñoo euh, fait ak juróomi nit ñoom ñoo fa daan fanaan mhm. donc yooyu moo doon am ci biir université bi léegi nag période bi c'est une période vraiment exceptionnelle moom moo tax ñu ni li nga xam en tout cas sur le plan social war na fa jógee laal waxuma la étudiants yi sax mais personnel bi laal professeurs yi donc il faut que nous soyons d'accord et le plan de reprise je crois que nous euh, nga que ni avons ñoo de war bokk ñëpp mhm. assemblée de l'université bi délibéré Le ni plan de reprise est une reprise graduelle. mais reprise graduelle ça veut pas dire que nous devons du def cours. Nous ñi dañuy continuer de def cours en ligne. à distance Pour l'UFR mhm. UFR 2S l'UFR UFR santé. Mhm. bu université. Eh, fer bi pare na kuuram mhm. et lu ci ëpp ci kuuram a ligne la ko def parce que ba nu nee na nu tëj université bi UFR boobu noonu arrêté wul ay kuuram mhm. étudiants yi ñibbi nañu mais dañu continuer seen ay cours en ligne. D'accord. Bi def examen. D'accord. mais tout à l'heure il ngi wax que disposition yëpp jëloon nañ ko. Mhm. mais on voit que ça euh, peine à démarrer comme ni ngeen ko donc ça veut dire qu'il y' a un problème problème que maintenir. vous ne parvenez jusque là pas à à résoudre. non mais euh, en fait euh, université un problème ñoo ànd. Hmm. en réalité ce n'est pas quelque chose euh, pour moi li nga extraordinaire euh, université un ko xamni dafa nek li nga xamni comme nu mo koy waxe ken du la wax ni danaan la instant bi tanena rek hmm. waaw mais il faut toujours attendre que mo am ay revendication parce que zone de liberté la hmm. donc zone de liberté la euh, muy enseignants yi muy étudiants yi nonga daar yi dañ leen di tagat ci li nga xamni mom moy ñu exprimer sen opinion ak toujours di pousser hein, sen réflexion faut sore contradiction fu muy am hmm. loolu du ci eh, et je pense que nous allons continuer de dialoguer avec euh, les étudiants hmm. Nous allons continuer de dialoguer avec tous les nga qui autour de l'université et hmm. je pense que euh, dans nous, Inch'Allah, nous ci ci phase bi nga y a eu tout à l'heure université ak problème ñoo ñoo ñoo ñoo ànd li ci melni université Gaston Berger amoutone problème mais on voit que maintenant euh, mur de lamentation la problème yi bëri na surtout li jëm si assainissement euh, temple bi am temple di savoir bi gis nañ ne problème yu bëri am nañ ko étudiants yi dañuy génn di ñaxtu yow contexte bi nga fa ñëwee xam nañ ko. Mhm. c'est parce que y avait un étudiant qui était mort ñu doon réclamer seeni bourse mais au-delà de réclamation bourse yooyu assainissement bi moo nekkoon seeni problème tey fan nga ci toll. waaw euh, xam nga. duma ni université de Saint-Louis dafa wuute ak yeneen université yi. Hmm. Euh, du moment moo sur le plan de la prise en charge des étudiants une université non au contraire mm. université Saint-Louis université bi nga de de euh, man la mm. euh, donc de quatre à 2000. mille recteur de nga de l'Université, la mm. donc suis sama ancien de deux ans université nous avons wax ni problème ak problème ñoy université c'était pour que 5 accueillir 5000 étudiants mm-hmm. évoluer na installation depuis 83 la hein, donc que ce soit assainissement que ce soit électricité mm-hmm. c'est vrai que maintenant que état bi def investissement supplémentaires mm-hmm. parce que depuis euh, en tout cas 2012 actuellement capacité d'accueil est doublée au niveau de l'université Gaston Berger def nañ fa 2000 lits 2000 lits nous avons andi capacité pratiquement de 6000 et quelques 6300 à peu près lits mu nekk li nga xam ni dafay boo jëlee donc, ak 11700 romb na hein, donc xaaj bi ci étudiants yu muy accueillir nga comparé parce que bu dee une université da comparer avec comparé ak naataago université boo jëlee li mais mais est-ce que war nañ comparer tamit. si si directeur est-ce que waroo faire ba nga xamanteni yow yaay gëna nek au top. non dama lay comparer ak yeneen université yo xamanteni bokul bokkule. non bo comparer wul. Hmm. doo mën a xam ndax yaa ngi ci top wala mais pas forcément nga comparer. si si il faut comparer parce que comparer mom moy tax nga xam fan nga toll. Hmm. natt dafa bax bo dé natt da ngay am référentiel. Hmm. Hein, c'est important donc ci natt boobu na ni xol dans la famille universitaire nga mun a nattee. boo nattee feneen da ngay da ngay juum. UCAD. Si xolé ci walu prise en charge étudiants ci ci ci hébergement. 8 mhm. 8 mhm. par rapport à l'effectif. Si bo jélé li nga xamni moy 3 là n'en parlons même pas de caisse ou bien une université bo jélé ci sous région encore. Mhm. donc tu n'as pas moins de 5 plus de 5 de prise en charge donc alors que nous avons ici 52 de prise en charge boudé tu ci walu hébergement des étudiants donc quand même université de Saint-Louis dafa une histoire quand même. Mhm. parce que pour nous comprendre aussi l'exigence de université étudiant université l'université, mhm. ça dépend de l'eau. da ngay bëgg toujours di mhm. c'est tout à fait normal. Mais l'exigence exigence au niveau de l'université casson Berger. mu gën a est par rapport à l'université. Quand yi xëy université, yeneen universités yi université Casson Berger dans le du ñu wax mais l'université avec l'histoire histoire nous bu mu traversé pour nous mun wax mm. c'est encore beaucoup plus difficile. Mais mm. sur le plan de l'assainissement, c'est vrai qu'on a traversé une crise assez importante quand même à cause de l'assainissement. Au moment le président de la République avait instruit le mm-hmm. ministère de l'Enseignement supérieur mm. en rapport avec le ministère de l'eau et de l'assainissement, aidé par le ministère donc, des Finances et du Budget, pour que nous def projet bu pour Université Saint-Louis D'ailleurs, lan ko waxoon ci fin d'année bi ministère dégagé les fonds c'est-à-dire que 600 millions parce qu'au départ le projet était euh, mesuré sur 2 milliards donc 300 mais dafa évolution à Saint-Louis parce que boni fait une évaluation euh, pour projet bi donc déjà on a des investissements aux alentours de Sanar. Mhm. mi nga l'université université mais il dafa des sites donc d'évacuation des eaux usées. Mhm. dafa am station de de pompage tout cela. Mhm. donc loolu dafa waroon projet pour que nous bénéficions deux fois euh, le financement de état Nous ñu le le le projet mu 600 millions donc 600 millions qui budget ministère de l'enseignement supérieur moo en charge def décision de versement mais avec des difficultés financières. Mm. donc euh, donc ministère des finances donc mujj ko mais en bi donc Inch'Allah, on a pris toutes les dispositions pour que mm. effectivement le projet démarre. On a ce moment qu'on va réaliser. Mm-hmm. Hein, donc mais mm. nous tamit une responsabilité en tant que CROUS. Hein, donc nous bailler projet bi xaar projet bi ñëw pour ñun ñu def suñu liggéey. d'accord moom moo tax à l'intérieur de l'université li nga xam ni difficulté yu ñu doon am mooy que pompe yi da daan lakk. Mm-hmm. parce que production bi la attanatul. Mm-hmm. Euh, te tamit euh, les canaux euh, mooy le réseau. Mm-hmm. dafa màggat day bàyyi jàll les corps solides. Hein. donc bu ñëwee ci pompe bi pompe bu fekkee lu solide. dafay lakk pompe bi. moo tax on a donc acheté pompes supplémentaires pour que, éventuellement, quand on a des problèmes, rapidement que nos équipes puissent intervenir. Mmh. Nous renforcer encore l'équipe hein, qui se chargeait de l'assainissement. Hmm. Donc, on a recruté deux spécialistes. On a recruté aussi des ouvriers autour hein, donc de l'université pour que résoudre chaque jour nous sommes top pour que corps solide soit bañ station de pompage et boobu donc croisons les doigts donc ça ça marche. Mm. pour ce qui est de l'eau mm. on a euh, le président instruction l'instruction mu que moom mooy que euh, euh, réalisé bien le château d'eau ça a été réalisé et réceptionné donc château d'eau 250 mètres cubes. plus moo ngi présentement non mi fonctionné. Mm. mais le problème actuellement le nga problème bu nous que. Si dee Sanar dafa nekk bout de réseau. Mhm. maanaam ci réseau es euh, SONES. Mhm. te jamono ñuy def université faut ci dëkk les problème ban ko euh, ba ni ñi ni ñi réseau mhm. donc euh, université bëgg jël tout lay lay réseau investir def canal investir canal dédié pour dévier si le président décide de faire un château d'eau château d'eau bi département Saint-Louis actuellement déficit de production. D'accord, peut être que c'est être que mais man directeur euh, Gaston avancé euh, au niveau de l'université, la réalité est telle tel quel tey gis nga kérok rek ñoo ñuy won ay vidéo yo xamanteni ni c'est des chambres yo xamanteni ni yu inondé la ay ay problème assainissement bo xamanteni ni mënu ko expliquer mais bon la manière dont vous prenez c'est comme si tout est tout est rose alors que tey ji la réalité est autre. mais yow li nga wax lolu assainissement. mais si assainissement bi la bokk. non non parce que assainissement bi bu doxone comme ni mu war tey problème yoy yeb duñ ko am directeur. non non non da nga ni da nga ji chambre yo xamni ndox ma dafa nek ndox momu du affaire assainissement ndox momu ndoxu taw bi la c'est à dire que dafa am euh, village O euh, ñun on a 15 villages ak pavillon bu nous réceptionner muy 16e village en attendant benen bi muy 17 mais dafa am ben ci 15 villages moy village O mom modules. tuddé module euh, président ba mu lancer 2000 lits dafa xawon yex ci réalisation bi té ñi ñi amuñu won fu dëkk mu amone des modules universitaires Nous ñu jox ay modules nous avons fait provisoirement les étudiants donc ce sont des abris provisoires donc module yooyu ñu defar moom mooy bàyyi ndoxum taw mi di infiltrer donc ci qui la day infiltrer ça n'a rien à voir avec l'assainissement parce que nous musul tijji période hivernage mm-hmm. donc c'est notre première expérience aujourd'hui que nous tijji c'est exceptionnel c'est mhm. vraiment exceptionnel donc problème du mhm. mais problème on intervient hein. donc pour moi, de mhm. euh, di ma déjà durant euh, benn nekk yi nga xam une infiltration automatiquement bon ami ami, dem nañ déplacer saytu le village donc ça n'a rien à voir avec l'assainissement et c'est pas légèreté mhm. c'est un c'est un problème qui est là mhm. hein. c'est un problème le problème président de la Donc mhm. hein donc c'est pas de la légèreté mais c'est de la responsabilité donc pour nous que d'abord nous appréhender la question comme il faut rien ne sert pour nous, de s'alarmer mais nous, diriger

Euh, man avec euh, le recteur Thiaré dafa am ay difficultés majeures yi nga xam ni. Mhm. dafa nekkoon université Gaston Berger. Mhm. te difficultés yooyu principalement bokk na ci li nga xam ni euh, indi impacté na. Mhm. mu am ay mu am session unique. daaw am ay UFR sax yi nga xam ni dañu dañu def année blanche. du reprendre année bi. donc ñoom déjà traversé nañu loolu. ñun ñëpp biir université. Euh, Gaston Berger pendant que les autres universités les autres étudiants ils ngi dit jàng donc ça veut dire que passé nañu dem classe supérieure. Mm. alors que étudiant Gaston Berger une taxaw benn place. nous nous avons Covid vraiment avec sacrifice étudiant étudiants IDEF, def et père IDEF, mois de juin. Mm. université Saint-Louis au plus tard mois de juin voire mi-juillet nous avons été lépp pare. une activité i parce que chacun avait fait des efforts sur lui-même. Mais Covid 19 Covid a a perturbé tous les plans actuellement. te enjeu bu nekk ci université Saint-Louis nekkul ci université parce qu'on a déjà perdu une année. et fu mu nekk les étudiants lu ragal. moins que effectivement quand on horaire bu leen jox est-ce que doy pour que nous puissions valider ces semestres Professeur, yi nga xam UFR yi nga xam ne loolu seen wareef la seen wàll la. ñoom de reprise bi mais je pense que étudiant. dafa war a jàngi. jàngalekat. dafa war a jàngale. jàngalekat bi nee na lii je pense que c'est de la responsabilité xam nañu responsabilité bu bu et bu nu rassurer que effectivement que loolu noonu euh, lu ñuy ragal ci gannaaw maanaam seen semestre hein, mën a valider. Et convenablement, je pense que les étudiants dans nos dans classiques. dans D'accord. Côté œuvre sociale, euh, est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que les étudiants non seulement l'osé mais aussi jox leen ñu non lolo <coughs> euh, euh, comme nous ma la waxee assemblée d'université hmm. ñaari mesure a jëm ñaari mesure nous, nous nanu une reprise graduelle. Hmm. deuxième mesure nous avons respecter qui ci campus yëpp hmm. hein, donc les mesures barrières les dispositions sanitaires hmm. dispositions sanitaires bu ñu ko waxee CROUS moo tax qui wax moom moo ci li nga lim bu ñu ñun recevoir hmm. mooy 4500 étudiants parce que ñooñ ñoo concerné premier cohorte bi nga xam ni moom mooy ñoo war a jàngi ñun suñu credo mooy lan képp ku ñëw université nek étudiant da nga loges loger il n'est pas question que étudiant di ñew du am logement fu mu dëkk. té tamit logement précaire yu ñu doon def wala étudiant yi di dajale ko loolu ni bañ mo motax prendre reprise bi d'ailleurs, ñu jël suñu responsabilité ni mënu ëpp 4500 parce que bu ëppee 4500 rek. la fa nekkoon nañu déllu ci si waat te loolu baxul donc ci plan de reprise moom nañu sukkandiku pour def loolu mais tamit. Mmh. bu dé 4500 yooyu ñom ñoo ñëw. li nga xamni moy mesure barrière ñi nga xamni les respecter mesures barrière yi euh, du ñun ñoko les autorités sanitaires ñom ñoko édicter édicté nous ñu war ka respecter moy que ñu respecter distanciation sociale bi ci sur restaurant yi universitaires on a réduit les places assises de 25% pour que les que étudiants aient donc espace on a ci biir euh, ci buntu euh, qui nous nu des restaurants, restaurant hmm. euh, système de lavage des mains euh, pour spray pour def qui euh, solution alcoolisée qui hmm. hmm. déjà on va le faire ci village buntu village universitaire même dispositif de lavage des mains spray, fa y spray yi étudiant tu as on met à ta disposition au moins trois masques lavables plus donc moustiquaire parce que nord nawetam day yéex. Mhm. donc moustique yi day barres surtout xam nga zones zone agricole donc euh, chaque étudiant dañ lay jox ben nous moustiquaire pour nga aru ci walu ci walu bobu non ci service médical des étudiants ñu approvisionner convenablement pharmacie bi. Mhm. ba paré nak identifier un identifier ba paré équiper donc ben ben zone d'isolement parce que xam nañ ni la plupart du temps les étudiants. Leur moyenne d'âge, c'est 25, 25 ans, voire 24 ans. Mhm. donc, ce sont des personnes, la plupart du temps, asymptomatiques. Mon mhm. motard effectivement, donc, on a une zone d'isolement. fi nga xam ni yaakaar ni ñuy mhm. donc on les isolé pour est isolé ba nga en tout cas soit avéré na nous au niveau de la région médicale donc dispositif régional bi di la et même le gouverneur donc euh, pas plus tard qu'hier on faisait le tour de l'université pour nous voir un centre mhm. hein, donc de traitement à l'intérieur de l'université parce qu'aujourd'hui quand même mhm. Flambébi, mhm. au niveau de, du département de Saint-Louis c'est extrêmement important et surtout ci cas communautaire et il est avéré que euh, nous quelqu'un qui est asymptomatique nous avons jusqu'à 400 personnes. tout à fait donc quoi euh, mais imaginons. Mhm. que bien étudiant. et hein, donc euh, asymptomatique que à université. Mhm. donc loolu lu muy def comme comme dégâts. Mhm. mais quand même toutes les dispositions euh, au niveau de l'université ont été prises en charge pour que effectivement sur le volet communication aussi. pour ce qui est affichage activité hein, donc de communication. de masse à l'intérieur de l'université. Donc on le fait avec la cellule de communication. Et on a signé aussi une convention avec la Croix-Rouge pour qu'à l'intérieur de l'université, nous continuions de sensibiliser les, étudiants. D'accord. Alors, directeur, pour nous dire c'est partie Bobo, nous avons réservé l'université Gaston Berger, euh, on a tout à l'heure, moi, pandémie Covid-19, il a bouleversé peut-être le programme que nous avons Impact, L'impact, si nous avons mesurer en termes de, de pertes, nous avons pertes si nous avons la Covid-19, surtout ce que nous avons oui, euh, l'établissement <laughs> établissement public c'est pas fait pour euh, pour gagner ni perdre. Mm. parce que public c'est public hein, quand même. Mm. Euh, mais quand même si vous voulez sous le budget parce que le budget permet lay permettre en termes de rentrée de recettes, mm. en rentrée de recette pratiquement 800 millions de dana c'est sur nos budget. Eh, parce que pour dee halls ci vois location chambre principalement mm-hmm. ak vente de tickets eh, il va sans dire que bu amul euh, présence étudiant ci bir université bi donc fay da fay watch ci sunu mais loolu tamit mm-hmm. da ngay xol ci walu aussi la nga xamné ne non doon fay repreneur euh, restaurant université tamit doo ko fay mm-hmm. eh, donc l'un dans l'autre fay ñeu annuler les effets mais comme on le sait ci bir centre universitaires mm. surtout mm. Hein, donc on a des des des problèmes en tout cas d'équilibre budgétaire parce qu'à chaque fois avons contrôler la fréquentation des restaurants mm-hmm. voilà parce que tu va aimer 4500 quatre lits normalement normalement 4500 plans cinq servir mais ci université depuis le président Wade euh, c'est vrai que nous avons loger nous loger mm-hmm. mais l'œuvre universitaire c'est pour l'ensemble des étudiants c'est pour 11 757 étudiants nous mm-hmm. nga nourri, nous nga nourrir nous hein, ñoo ci activité œuvre sociale donc mon moteur donc c'est pas c'est pas gérable et à chaque fois quand même le gouvernement en fin d'année surtout dernier trimestre yi hein, venir en appui au au centre des œuvres euh, universitaires d'accord mais euh, directeur tout à l'heure maa ngi koy wax présentation bi conseiller municipal nga si commune de Saint-Louis que farando maire bi di Mansour Faye seen dëkk bi dafa mel ni inondation yi sonnal na leen ah. Kérok rek gis nañ cri de cœur bi nga xamanteni maire bi mang koy lancer ci média yi preuve d'échec la wala non, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, Doumani, Doumani échec là, parce que ah ouais? Euh, assainissement n'est compétence transférée. Hmm. Hein, donc, tu, tu mairie, euh, des frais qui nous fait Parce que, les gars, ni lolo, assainissement ak lu muy laaj ak a fait attan. Hmm. ak investissement yu laaj état rek a ah, mais heureusement mais mais Mansour il est dans l'état heureusement c'est un mais, ministre non mais, oui, proche mais, du président de la République mais ba nga ma laaj goro président aussi da nga ba nga ma laaj da nga en tant que conseil municipal bo ma laajé ci len mu na mais acteur politique nga man dama analyser les faits ça dire bu nek di raya la fait nañ analyser les faits poser des questions. parce que Mansour Faye euh, yeen yeen nek yeen bokku pas APR ya ko bokk nga ci ñiko gëna jégé tay Saint Louis tay buñu démé boy wax lool peut-être amna ay conseil yo xamanteni yang ko doon jox ci souf moy tul li wala defal li pour ñu joggé fi xam nga Euh, euh, monsieur le maire ministre nekkoon qu'un ministre de de l'assainissement. tout à fait. voilà y euh, am un programme bi nga xam président de la république lancé woon na ko. Mhm. programme des 10 villes. ass assainissement. Mhm. ci dix villes il y a ci la bokk. lancé woon nañ ko Saint-Louis. voilà donc tey boo demee il nga mhm. xam ni eau usée la. au eau pluviale. Hein, parce que Pékin quartier bi nga xamni defon des nañu assainissement bi ci walu pluviale. mais difficulté bi mom mo don amul won assainissement eau usée. population bi naturellement dañ doon jël sen eau usée de ko branché ci ci canaux d'évacuation des eaux de pluie. donc mo tax mo don am effet. motax principalement sur les 17 milliards yi nga xamni ci walu assainissement. Mmh. dougal nañ ko Saint-Louis moi qui période monsieur le ministre était euh, monsieur le maire était ministre de mhm. l'assainissement et de l'hydraulique mhm. pratiquement 17 milliards 17 milliards mais Saint-Louis gisu qui si non non non Saint-Louis gisu c'est Saint-Louis Saint-Louis duñu patauger si ndox mi yow tamit Saint-Louis Saint-Louis c'est pas c'est pas un quartier c'est 33 quartiers bien sûr voilà mm. boo quartier bu mel Pikine c'est l'un des quartiers les plus populaires mm. de Saint-Louis mm. aujourd'hui

problème au privé pluviale bu ñëwee au privé ngay wax parce que amener nos réseaux, réseau bi nga xam ni moom mooy jël ndoxu taw mi di ko yóbbu bokkul mhm. ak eau usée bi nga xam ni moom produire ci kër yi pour mu jàll ci beneen réseau parce que bokkunu même réseau mhm. hmm. donc foofu il faut que déjà ñu cadrer mhm. donc la discussion ci faut non. ci li nga xam actuellement ci au privé bi parce que moi moi mooy moi problème. Moi problème bi ni. nii Saint-Louis dafa nekk ville d'eau ñëpp xam d'eau. ceinturé par l'eau. quartiers quartiers yu la. Mhm. donc pratiquement quartier bi nga qui mhm. saint la. et zone la bi nga est une zone la. Mhm. naturellement euh, avec les difficultés ak seen investissement yu ñu def parce que aussi ndar dafa ndaw. dafa ndaw. Mm-hmm. parce que dem nañu ba nga xamné ndar pratiquement sur euh, espace territorial au Saint-Louis nit tu fa dëkk. Mm-hmm. légui nit da ngay xool foo bërëxloo nga dem dëkk fa. donc du coup mm-hmm. zone yoy nga xamné muy medina Course muy ginnaaw ray Cité Ñax muy medina Daaru. muy jaminar donc ce sont les zones les plus touchées. hein, par les eaux de pluie moom moo par rapport wax naa la ci njëlbeen c'est pas une compétence transférée ci luñ ci mën donc le maire au départ ba wa anasim waxee ni ren taw mi dana bare donc xaaruñu taw bi ñëw dañ ni taw mi dana bare il faut que que ñu ñu dogale en faisant quoi chaque année j'ai eu la chance que maire du mu yónni ci yenn quartier yu gën difficile parce que quartier yooyu la dëkk en réalité mm-hmm. que bu amee ndoxu taw ma ñëw soulager pour def pompage

moom mooy cette année. Mm. daaw dix motopompes noonu amoon suñu par ren on a trente trois motopompes yi nga xam ni dafa ñëw yokk su dix motopompes yi muy pratiquement quarante sept motopompes yi nga xam ne dañ ko mettre à disposition ci quartier yooyu. d'accord pour que ñuy pomper mais. Mm-hmm. c'est difficile parce que lu tax. c'est difficile non je comprends. c'est parce que parce que xam non xam nga pompage ndox dafa dafa jafe. Mm-hmm. xam nga bu dee taw ngay pomper. Mm-hmm. te alors que réseau d'assainissement ou ONAS bi pompé wul lu mu war a pompé li nga xamni souci suuf si jëlagul li mu jël ngay pomper c'est-à-dire que tu fais rek da ngay da ngay da ngay liggéey pour wane ni yaa ngi rek. mais pomper woo dara en réalité. d'accord donc tu fais beaucoup d'efforts et en réalité résultat bi fay minime moom motax toujours ñun dañuy xaar suñu suñu équipe de pompage dañuy xaar bu tawé ba sëlët mhm. ñu bayyi li nga xamni réseau ONAS yu Saint-Louis pomper mhm. pendant six heures de temps nous baillons encore un jour ou deux jours pour que en tout cas nous commençons à pomper. d'accord et depuis plus de dix jours Saint-Louis mënul deux jours sans temps. d'accord euh, question politique pour nous dire l'émission, hein, parce qu'on est à terme. Mm-hmm. Euh, candidature euh, Marie Teuw qui qui mairie bu Saint-Louis nan nga ko oui ça vrai. non mais c'est yon <laughs> yéen a bokk APR <laughs> yéen a bokk <laughs> moom bu fippoo moom candidat la. pour mu succéder mag ki nga xamante ne moom moo nekk Mansour Faye. te Mansour Faye sa xarit la. boo ma laajee ci Mansour ma tontu. waaw mais noo ko gisee. ci mairie de am na ci am na ci hmm. problème y pas de problème. mais la nga xamni moko motiver ko man mënu mako wax est ce que loolu du woné problème bi nek seen digënté ak Mary Teuw Niane ak yenn responsable politique yi nek fofu ci Saint-Louis tout ban problème mo mëna amna problème kay parce que déggoowu leen seen biir xam nga xam nga problème bu fekkone yéna ngi yéna ngi liggéey ci même même ki ni euh, même ci dégo kon tay du am ño xamante dañuy fipp génn naan dañuy doon candidat xam nga mar euh, problème xam nga kañ lay am hmm. euh Mansour fay hmm. mënul nek en 2004 nek dekkal ngor président de la république 2006 ñu créé donc à peu près 2006 2007 2008 ñu créé APR. Mhm. Hmm? mu nek ci fondateur APR yi Saint-Louis samp APR. Mhm. développé ba ko fu mu toll. Mary Teuw 2012 après président ba mu nekkee euh, ñu fal président mu ñeu APR. Mhm. nga nan ma non mais Mary Teuw liggéey na fa de monsieur le directeur. da naan xam nga président campagne bi campagne bi campagne bi xam nga ne Mary Teuw lu mu liggéey si campagne bi yow tamit si. ñun ñëpp liggéey noonu. département bi yëpp moo ko géré woon bu ngeen gisee ngeen am te yenn résultats est-ce que liggéeyam bokk ci. xam nga li ngeen li ngeen wax nii. Hmm. xam nga mooy mooy méconnaissance su texte APR. Hmm. xam nga hmm. li nga xam ni territoire. <coughs> territoire. boo nee département département du territoire. commune mooy territoire. xam nga commune commune Saint-Louis am kenn ku ko gérer. mais gagné commune Saint-Louis te gagné département Saint-Louis lan lay jëri waaw xaaral ma wax la kay man la question bobu c'est pas d'accord d'accord. Saint-Louis une hmm. commune la commune Saint-Louis. Hmm. commune de Pal de Fass de Ndiébène gagnol. donc mais communes yoy dafa am ay responsables communes yoy responsables yoy ñooy liggéey seen commune cinq communes yoy ñoo nek département donc département amul territoire.

buñ dee sanctionné négativement yow na ñuy sanctionné négativement tey jii commune de Saint-Louis. Mm-hmm. buñ ko gañewul woon mais dañ naan maasu nanu gañe bu gagner. commune de Fass buñ ko gañe woon dañ naan maire ba nanu gañe kenn wax ma Samba ma Demba donc responsabilité bobu loolu la mais dans une coordination mm-hmm. ku nek da nga am loy liggéey patch buñ la jox té té xaar ma mm-hmm. ñun dans dans dans le département de Saint-Louis coordonnateur départemental bi c'est Mansour Faye

président moom mi ñu fal wóolu Maodo Faye ni ko dénk naa la sama parti ci département de Saint-Louis. Hmm. mais mënoon na ko jël moom kese mais moom jëlu ko moom kese dafa ñëw ku nekk mu xaaj la. ne la jëlal li Pape Ibrahima Faye gérer li Aliou Diop gérer li c'est bon Aminata Gueye euh, gérer li donc directeur yaakaar na ni euh, ma kii euh, ki nga xamante ne moom la nekk Mary Teuw Niane mën na am dara. ci mairie bu Saint-Louis alaaj ah, moom loolu man. Eh, gis-gis. non am nga xam man. parce que gars yi moom dégg naa kontaanuñ yoree ma xam saint moom kontaanuñ ci ni ngeen yoree mairie loolu moom dégg nañ ko loolu loolu ku dugg Saint-Louis di nga ko dégg moom la gars yi di waxtaanee hmm. eh, fi ay politiciens yu nekk ah, wala ay ñu doon wut nguur yu nekk Eh, ñu lay bind ci réseaux sociaux yi nga nekk populaire nangam sangam boo demee ca xare ba daa xam réalité xare ba. colonel Kébé moo ngi ñëw de moom tamit ñëw. oui nan lan nan gën a bëri rek. Hmm. comme ça daanu xam ku nekk ci mbër yi kan mooy mbër mu mag bi. c'est important parce que kuy calli calli rek eh, dafay fekk ni gaañ ci tëggagul. waaye bu ñu tëggee rek ku nekk daa xam sa place. d'accord directeur jeexal euh, si troisième mandat bi dafa mel ni question boobu moom du la ko poser parce que damay bañ ñu dàq boo si commandé dañ lay dàq. Euh, gis nañ maître Moussa Diop mom mo nek dernier victime dernière victime li nga xamantene mom mo nek 3e mandat état démocratique ni lay doxé ah, mais ku la wax di 3e mandat. motax tax ñu dàqu ko. non je suis désolé dafa taxaw sen TV né Macky Sall. waroon am mais mais mais man analyse bu ma ci def. Hmm. xam nga Sénégal li moo dafa dafa dafa nekk dëkk bi nga xam nga wax sa xalaat. mais c'est les faits sont. les les non les faits. les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. les les les faits. Hmm ak commentaire mais il faut que nous diriger que ñi nga xamni ñoy borom xel yi pour man man duma ma nit mi nga xamni ci mbedd wala question mais borom xel yi dafa am li nga xamni analyse yi nga xamni ne ñuko def parce que maître Moussa hmm. ban kay fal ken hmm. kenn woowul ma Mademba ni Macky Sall falal maître Moussa mom mo jël en âme et conscience ci constitution lu ko denk mu ni ko yow denk na la Dakar Dem Dikk waaye mais mom amul sañ-sañ bu toogee ba si yàgg ni yow léegi sa mission jeex na. foofu ni mais bi mu ko def. waaw xaaral ma ñëw mais jamono kenn du ko ka sàkkal. président moom moo yore agenda am. mais war na xaar ba kii nii génn def déclaration. mu def déclaration xam nga déclaration boobu xam nga man munu ma ci munu ma ci sore xam nga lu tax. Hmm. déglu naa ko mais en tant que un homme man. Hmm. man un homme public c'est-à-dire que bi nga xam ne dafa nekk si station. publique koo xam ne Macky moo la fal. non station publique. xam nga hmm. Macky ba mu ma falee. dans ma fal ci règlement ak loi ak constitution Sénégal dafa am li nga xam ni même bu ko bëggoon ci man mu la nga constitution permettre règlement permettre ko man mun def d'accord mais dafa am li nga man en tant que homme d'état hmm. homme de pouvoir ñu denk ma alalu askan bi ni ñi di ma déglu dafa am li nga xamni moi je suis pas un homme libre pour wax ni ma nexé non non non du tout d'accord mais Mali hmm mais sunu nawle la moi je suis pas un malin pourquoi je may may pas prononcer affaire au Mali mon homme public. Quand ne analyse. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Hmm. mais moi, en tant qu'homme public je me garderai hein, de de de de de faire de l'ingérence de

li nga xamni moy infrastructure yu mi def yi nga xamni moy walu ndox mi li nga xamni mom mom moy pétrole ak gaz bi. d'accord donc c'est ça. est-ce que c'est cas bu jexé directeur maki war na dem. wala maki war na do doon demandé waaw loolu ci àgg. et on est dans un pays organisé moi je suis dans un parti organisé qui est la l'APR et j'attendrai que sunu parti wax ci bu soobee maki bu né une fois dina def 3e mandat. loolu ñëwagul merci beaucoup directeur <laughs> Pape Ibrahima Faye <laughs> maa ngi lay gërëm di la sant c'était pas évident jóge Saint-Louis voilà accordé ñu temps bi nga xamné université bi yënguna lool ñong la ci gërëm di la sant vraiment merci beaucoup pour collaboration bi nga xamante ni yaa koy def ak ñun boobu batay merci beaucoup jërëjëf merci bien Dakaractu maa ngi gërëm caméraman ak technicien yépp ñi nga xam ñoo déplacer wu ak yow di wax ni yéen ngi def liggéey bu rafet tamit l'essentiel moy que il faut communiquer informer juste maintenant commentaire yi donc population bi danaka defal bopam bu soobee am. D'accord. Dakar Actu ñu jox leen dig dajé semaine bi di ci émission Actu Débat ak benen invité